police nationale yëpp mais di jaalewaale les force de défense et de sécurité ñoom ñëpp ndax ci ñoom kenn ci ñoom moo daanu ci dans des conditions yoo xamante ni dramatique ngir rek taxawu askanam ngir rek sàmm askanam kon Xasim Jeeju ñoo ngi ñaan sunu borom mu xare ko aljana dinaa dellu siwaat ci loolu ci biir waxtaan bi di jaale way juru Pape Amadou Keita ci kër Mbay Fall ñuy jaale waajuram gis nañu sorti bi nga xamante ni def na ko mu nekk sortie boo xam bu triste la képp ku ko xoolee sa yaram daw na xale boobu nga xamante ni ba mu juddoo ay waajuram investir ci moom am yi yaakaar ci moom comme ni sunu jur yëpp amee yaakaar ci ñun waaye bés ñëw rek fa nga xamante ni fa lañ yaakaaree woon ci seen taxawaay kaaraange ña nga xamante ni ñoom la ñu yaakaaroon ci ñoom taxawaay ba kenn du faatu ba képp ku ñu investir ci yow xale bu ñu investir ci yow ba nga juddoo ba mag ñuy am yaakaar ci yow di la xool ngay dem ñuy am yaakaar ci nga dëgër ñuy am yaakaar ci yow nga xëy di jàngi di dem ak ñëw di am looy xam ñuy def ci yow xam-xam nga xëy rek ñu ne faatu nga noonu loolu pour man c'est trist leneen li ma gën a tristal mooy maa ngi déglu rek booba ba tey waaye gisuma sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo sabab loolu kenn ci ñoom génn def ci taxaw seetlu ak naqarlu naqarlu wuñ ko benn yoon te ku mu dee woon ci sa kër tey di nga tal leneen lu dul génn naan da ngay wala nga da ngay génn naan da ñuy di wane ci sa kanam sa xar kanam mbégte wala soit nga toog jàpp sa jàmm noppi ci ku mu dee woon ci sa kër te du ñu nekk li ñu bëgg ci ñun du mat mukk lu dul jàpp ñu ne kenn ku dee ku mën a dee dafa mel ni ci sunu biir kër la dee tant que egguñu foofu cette banalisation de la mort là fi mu ñuy yóbbu musiba la te foofu duñ fa loolu moo sabab sunu taxawaayu tey bii réew ak lu mën a doon muy téye nguur comme muy bëgg nguur mënuñoo nangu nit ñi di dee ci dig-digal boobu di fàttali waxu Cheikh Mouhamadul Mountakha jooju am solo lool mu ne mu ne àdduna ak li ci biiram yilif ko jarul benn nit di faatu ndax nit dafa rëy